maa ngi tàmbaleeti ci tudd yàlla mi may marsiyaati alhamdulillahi ma sant buur bi cant gu ànd ak jégaloo tuubi te dellu sant yàlla muñ ay dogalam muñ gu rafet te jéema jëf ay ndigalam te sant soo borom jumaa war na ku dib jullit bu wér mooy waa bismillah maa ngi leen di jaale Seex Bamba borom kamaali bismillah maa ngi leen di jaale jëwriñu Seex Bamba borom kamaali moo fi desoon ci doomi Seexu Bamba bur yàlla yóbbu ko fekki Bamba moo fi newoon xalifatul ilaahi Sëriñ Saaliw Mbakke moo doon xaadimu rasuulillaahi mooy salaat tariixatul muriidi ba ñépp xam muriidi ak mariidi moo dalaloon xel ba ñépp jaaxle waaye de tey xol yépp a cey Mbàkke Balla yaa matal liggéey bi xutbu bi yaa yonen bi liggéey bi mat na xol yépp bég na sa dem gi tax na xol yépp dee cey yàlla laa ilaha illa laahu muhammadun arsalawal ilaahu salla aleylahu bi fi ali wa sabil kiraami cey yàlla jël na mbàkke balla ay borom gotëk mbuur dem na neeg solom saak ca yàlla jël na bàyyi soxna moomi amidine li wajikal kirimi hasidine kunu li teew ñëpp ak ñi nga xam ne amoon nañ yéene teew ñëpp ak ñi nga xam ne ñooy ñoo ngi ci yoon wi di ñëw ñoo ngi nii ñëpp bàyyiwuñ kenn di fas yéene wax ay kàddu rek ci turu suñu waajur bu baax wa Cheikh Amadou Bachir moom suñ Bachir moom suñ Modou Xabban di suñu waajur di ma amaan mbégte ak bànneex ak cant xol ak loo xam ne mënuñ koo wax su xol dafa fees ginnaaw ba nga xam ne sëñ Cheikh mu sëñ Saaliw di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ba nga xamee ne boole nañ ci liggéeyu ngóobu xel ko mi ñu bokk si jëwriñ yi ndax yàgg na yàggut waaye luñ ci def lu nekk rek eh, xeeb nañ ko lool te it eh, saa su ne ab soññee la ndax dañuy jàpp ne saa su ne defaguñ dara bañ ko dalee bañ suñ bi joxe dalee jox ndigal ba léegi dañuy jàpp ne ñun defaguñ dara ndax bañ ñu ko siñ seex njëkkee jox ndigal ñi ñëw boole ñu ci liggéey bi ñu ñëw liggéeyal sëriñ bi te loolu lépp su amee suñu bu baax bi dong moo ko waral loolu lépp nag ñu amaat ci ndigal suñ kilifa euh, di sa euh, di sama magu waajur suñu Ibrahima Mbacke xalif suñu Modou Xabban euh, bi ko waxee mu daan ne loolu de moom xéewal la tawfeex la it te yit lu yàgg la ndax suñu saal ñu ñun ñii la ko daan sas kon bu nee ba sas la ko loolu ab soññee la daan may wax jox ma si ndigal daan nag ci góorgóorlu boo ci góorgóorlu da nga am ndam waaw ginnaaw sëñ Ibra ñu ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér ba ci joxee ndigal rawatina suñu waajur bu baax bi nga xam ne at mu nekk bu suñ Cheikh Saliou yónnee ay doomam ak ay ndawam ñu ñëw jox ñu ndigal ñu sant ya weesu liggéey ya weesu ak liggéey bi ñu dëgmalaat nii moo xam ne xel koom ci lañ nekk tey la àjjuma àllarba lañ ñëwoon tombeeg la le 20 octobre moom lañ ñëwoon talaata sax fekk na tàmbali nañ defar kii bi di yeesalaat barab beeg yooyu waaye àllarba lañ jóge Touba ñëw defar si dal bi ba alxames yi dem ba tey ci àjjuma ñu ngi ci liggéey bi mbooloo maa ngi ñëw ñu ngi jóge fu ne ci région yi jóge jóge Touba ñu waa soow waa waa soow yi ñu ngi ñu ngi ñëw bu soobee yàlla incha allah ñëpp ñu ngi ci yoon ñëw am na am na am na am nañu ci jot a ñëw waaye ñi ngi ñu ngi ci daal ñu ngi ci liggéey bi te liggéey bi mi ngi sori lool ndax boo xoolee ngóob mi eh, li ci des bëreetut waaw xam naa bu bu àggu tey bu xëyee ab àggale lay doon ñu mu daal di des dajale ko mbooloo mii it wax dëgg yàlla wuyu si nañ eh, ndigalu sëriñ bi wooteb sëriñ bi wuyu si nañ ko macha ñu ngi ci ñu ngi ci waar yi ba tey wàccaguñ waaw eh, dal bii nag si ginnaaw bi ñu ci amee ndigalu suñ si suñu waajur joxaan ñu si ndigal maa ngi mbooloo mépp mbooloo képp ku fi teew rek. da eh, man li ma jàpp man dañ fee daje di liggéeyal sëñ Tuubaa waaw dañ fee dajee di liggéeyal sëñ Tuubaa ndax sëñ sëñ bi rek moo am ak fay waaw. mbokki julli di mbokki taalibe yi ñu nuy nuyu baax di leen siyaar ci turu sëriñ Salim Mbacke mu Serigne Bass Xabaan di ngi sant taalibe yëpp ndax woote na bi mu jotee ndigal di sëriñ Cheikh Mbacke Salim sëriñam mu wàcce si sëriñ Bass muy waajuram mu jàppale ko ci lool moo tax ndigal li nooy. waaye mi ngi wax seedal taalibe yëpp ne mi ngi sant bu baax a baax ndax ñëpp wuy na woote na ñëpp wuy ko mbokk mbokk mi mu bokkal ak lu Mbàkke sëñ Mahmadaan na ngi nii moom sëñ Fàllu suñu baaxee ak Baye Talla Mbàkke ak mboole dim ba léegi nit ñaa ngi ñëw àllarba la fi ñëwoon ba léegi sëñ bi daal mi ngi seedal mi ngi sant bu baax a baax baax sant nañ ñëpp sant na waa Ndakaaru ndax gis na nit ñi taxawee taalibe yi ñëpp taxaw nañ ci baax baax jàpp nañ ci liggéey wér wér ab sëriñ moom li gën li ko gënal mooy bu gesoo gis taalibe yi te sëñ day day ko neex koo xam ne du xewal nit bisam lu nit xewal mi ngi si nit ku ko amul taalibe la ku ko gis da ngay ne si dongay la bokk te kenn gënu ko bokk si yoon wi kilifa gu am kilifa gu am yar la gu nangoo liggéey la ko nangoo jàmm yàlla la fépp fu mu dem liggéey ak jàmm yàlla si la nekk neen mi ngi soññaa taalibe yi baax baax ngeen góor gën a góorgóorlu si liggéey ak jàmm yàlla te góorgóorlu si ndigal sëriñ bi te xam ne sëriñ Tuubaa ko am fay la pàkk bi di xel comme ne lépp lu fi nit fas amoo ko da nga xam ne si yow la sëriñ bi daal mi ngi sant ñëpp bàyyiwut kenn sant sëriñ Saaliw rek ndax ñun lépp luñ mën a am liggéey liggéeyub Serigne Saliou ñu ko gënal ñu fa yéenee liggéey nag wax dëgg yàlla sant Serigne saaliw dara manqué wul ci waañ wi soxna yaa ngi nii ndugg meeg yëpp macha allah Serigne saaliw nag indi ñu fi nag Serigne Saliou mu ndaw mii nag waa Dendey ñuy sant yàlla bu baax di sant Serigne saaliw muy fi nekk ndax wax dëgg yàlla manqué wuñ dara ba ñëw ba tey manqué wuñ dara liggéeyub Serigne Touba nag amul tànki euh, ginnaaw tànki kanam rek la sant Serigne Saliou rek euh, murit moom ku ne liñ leen bàkkee na ko murit dof la bu xasee ba soobu ci mbir mi ñun liggéeyal sëriñ Touba rek lañ xam ci la ñuy nekk ba ba ñuy ñibbi du tal dara duñ gis dara mooy loolu rek liggéeyu sëriñ Touba daal amul tànk ginaaw tànk kanam rek la am ñun daal ñu ngi ci di ci sant yàlla baax nag di ñaan yàlla fekke ko ay at yu baree bari ndax année bu nekk dañ ciy gën a yëg suñ bop rek année bu nekk dañ ciy gën a yëg suñ rek ca kaw ca kanam daal baax ka dem na nii ba génn àdduna wallaayi lii demetti naa ci àdduna way fu nu jëm ay fu nu jëm xawma ko man tey fu nu jëm ku ko fi xam nañu ko wan suuf tiim na bàyyi soxna waalo mbaake way adduna tukki ku yebu jekkim mooy samsu falli moo fi roy yonen bi jant bu soowee kenn du gis ci dun bi moo leeraloon biddéew yi leeral weer wi moo leeralaat jamono xàll yoon wi di waaj demam nga laay tëkkaleeg sa dem gi mbàkke wàcc nga al yawma akmaltu la yàlla wax ni diinakum gaaye di bég xamuñ li tax ndekete day tàgge keroog yonent bi am na ci ñooñ dégguñ li xew ci laaya bi xibaar ba tas ñu naa yoneen ba faatu kenn mënu koo dégg keroog Madina faaruuxa yor jaasi tanaa ko ami tey faatu na ma daal di lay seyduna abubakar siddiixu moo ko dalal keroog teewul ñu abubakar jooy na ba bët saaba yépp maasey tuuru saaba yépp maase tin nu jëm muhammadu rasuulullaahi moom lañu xam a Saaliw maa ko keroog ba muy gane si njaareem àdduna lañ xam ni kii mooy mujj leeral